maa ngi euh, ziar bu baax Cheikh Oumar Cheikh Oumar Diagne. Mm-hmm. nga xam ne moom euh, tey rek macha allah demoon nañ foofu seeti seeti ko këram seeti ko seeti njabootam. Mm-hmm. ko defee àndoon ceeg euh, Cheikh Niass nga xam ne mooy administrateur Walf directeur général Walf. Mm-hmm. ànd ceeg Moustapha Diop également le directeur de Walf de directeur de publication Walf quotidien Sidi Diop ak itam le comptable de Walf demoon fa vraiment ko pour la deuxième fois seeti soxnaam seeti njabootam. bu ko defee nag macha allah. Euh, seeti leen daam seeti leen wur jëflante ñoom euh, muy lu rafet loo xam ne ñun ñu ngi ciy gërëm Cheikh Niass bu baax ndax Cheikh Omar moom euh, wax naa ko fa naa ko waxaat fii lu ko waay defal rek man mii nga ko defal hmm. ndax itam day suñu nit ñu yàgg àll ci lii ba tey mu ne fi mu ne kon lu ko waay defal ñun nga ko defal sag la goo xam ne nii bu ko wal fa sagalee kër gi man lañ ci njëkk sagal man mi fi daan fekk si man mi ko fi indi woon ñu daan ànd kon maa ngi koy ziar bu baax fa mu nekk di ziar mboolem nga xam ne ñu ngi ñuy nekk ci euh, prison yi fépp rek muy rëbës ak 100 mètres ak fu mu mën a doon rek forbeek fépp ndax ñoom itam bu ñu nekkee ci biir yii rek la ñuy mën di wéttalikoo ngir di xam ci li xew ci réew mi su ko defee mu bàyyi la nga dikk ci loolu concert casserole yi ndax loolu itam maanaam ndax système la boo xam ne nii euh, face ak ku mel ni Macky Sall euh, président Macky Sall mën na ci moom dara. waaw si Pape Maguette euh, comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di sant yéen tamit Walfadjri mm. parce que Cheikh Omar. Mm. ñun ñun ak moom ñoo bokkoon xeex bi mu doon xeex. Mm-hmm. te tey lañ gën a taxaw pour xeex boobu ñu continuer ko. Mm-hmm. parce que ku yaakaar ni kaso mooy tax nit ki bàyyi xeexam. Mm. mooy xamoo histoire. Mm-hmm. parce que xam nga ñun ñi yaroo ci daara. màggee ci ñun tàmm nañ. tëdd ci am néeg ay fel di ñu màtt loolu dañ cee juddu ñu yar ci tàmm nañ bokk mbàjj tàmm nañ niñ koy waxee paquetage kon boo ñu delloowaatee foofu dafa mel ni rek dañ ñuy fàttali démb tey dama jàpp ni ku kuy jàpp ni kaso mooy tax nit ñi noppi mooy xamoo histoire man dund naa le monde arabe euh, def naa Égypte gis nga Moubarak turam sax ñi ma ko woon a tudd Égypte ñun sénégalais yi dañoo amoon benn code bu ñu daan wax mooy mbërgu boo nee mbërgu ñu xam ne Moubarak ngay wax moo ëppoon doole ci ci ci ci ci ci ci ci Égypte mm-hmm. waaye ba ko peuple am wanee ginnaaw mu insister fa mujj ñëpp xam nañ ko benn ali ñëpp xam nañ ko mm-hmm. kon nit da ngay jël say responsabilité mm-hmm. te réew mi tey ñi nga xam ni ñoo mën a régler propre crise bi dëgg buñ naxantewul ñaar ñii la mooy société civile bi ak sëriñ si société civile nag mënoo wax ni ñëpp ñëpp ñu ngi joué seen rôle waaye mënoon tamit ñëpp joué seen rôle am na fi ñu am courage ñoo xam ni lu situation réew mi metti metti seen kàddu dañ koy dégg ci sëriñ si tamit encore une fois am na ci ñoo xam ni seen kàddu ñu ngi koy dégg yaa ngi dégg parce que lu metti metti ñu ngi wax loolu mooy dëgg waaye am na ci ñoo xam ni seen kàddu même bu ñu koy déggee du kàddu guy indi solution nañu waxante dëgg te tey fi mu toll nii solution lañ soxla ci réew mi comme li ma waxoon rek laay waxaat ku bëgg indi solution nag ci ñaar ñu jote li nga war a njëkk a def mooy nga tëddee njaaxaanaay mais ku xas ba jël position même bu la yonent bi juree sallallahu alayhi wa sallam mënatoo àtte mhm. parce que àtte moom li ñu si yéen alquran jàngal leer na yaa ayyuha allazina amanu kunu qawaamina bil qisti aaya boobu Cheikh El Hadji Abdou Aziz daf ko daan wax mhm. yaa ngi dégg kon man bokkuma ci ñi nga xam ni dañuy toog ci plateau di bañ a jël ay su maam def ay sujet tabu ñun amuñu sujet tabou ñun Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mooy suñu sëriñ te moo ñu yee soog dem dafa am benn bëyit bu am solo boo xam ni alaaji Malick moo ko waxoon hmm. te jamono bii day baax ma fàttaliku muy ban Seyd ndax nit mag ñi Seydi Hadji Malick danaa wax naa danaa wax naan wax naa ngeen dégg ma bind bàyyi fi ma jëf ngeen gis loolu la daan wax wax naa ngeen dégg ma bind bàyyi fi ma jëf ngeen gis booba dafa xamoon ne jamono ngi ñëw boo xam ni nit ñi dinañ bëgg a falsifier ay waxam wala ñu waxal ko lu waxul Seydi Hadji Malick bi fi colon yi nekkee tubaab yi nekk fi di jàpp nit ñi jaam la wax bayit bi moo gënoon a metti fuuf Seydaaj ma lu wax dañuy ala himmati faj al ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati mu ne yow yàlla yàlla nga yëkkati sama yitte ba mu kawe yitte ju kawe li mooy li Cheikh Ibrahima ñas doon wax ni nit bu gëmee ne dina naaw day xëy naaw mm-hmm. alaaji moo ñu jàngal loolu mooy bul yaafus mukk gëmal ni ñi war a joxe solution yow ci nga bokk loolu mooy yitte ju kawe. Mhm. te joxe solution weesuwul wax dëgg ak ki nekkul ci dëgg nga ne ko nekkoo ci dëgg loolu Seydi Hadji Malick moo ñu ko jàngal moo tax mu ni fajal ilaahi aliyatan waaye nag man Seydi Hadji Malick maa ngi ñaan yow yàlla nga def ma as gor as gor mooy lan mhm. sëñ Babacar daa wax naan gor du tiit ba fen sëñ kër si nga xam mooy premier xalifa Seydi Hadji Malick mhm. danaa wax ni gor du ñàkk ba ñànki baat yi sëñ Babacar moo ñu ko jàngal te mooy xalifa sëñ Seydi Hadji Malick kon mag ñi ñuy wax nañ wax mag ñi ñooy ñan ak mag ñi yan position lañ daan jël mag ñi bi fi tubaab bi nekkee bëggoon a not réew mi ci la mag ñi taxawoon di jaamaarloog moom ci mbind ak ci xam-xam di ko wax ni bu nekkul ci dëgg ñu ne ko nekkoo ci dëgg kon mënuñoo def ba deux mille deux deux mille vingt deux bii képp ku fi nekkal mag ñi tey li ñuy xaar ci yow mooy fi dëgg nekk nga taxaw fi fi dëgg nekk nag mooy li Cheikh Ahmadou Bamba wax mooy ànd ak peuple bi Serigne tubaa bi ñu ko fi jëlee lu mu wax man Cheikh Ahmadou Bamba li tax ñu jëlee ma fi benn cause la wala ñaari cause la cause bu njëkk bi mooy an akuna shaafi an xaw qawmi damay dem pour sauver sama peuple kon Serigne Touba peuple bi la àndaloon. Hmm. yaa ngi dégg kon képp ku fi nekkal yonent bi saa sa la peuple bi nga war àndal bu peuple bi di souffrir nga ñëw taxaw ci wetam Serigne Touba ni li tax ñu jëlee ma fi bokk na ci xaadiman li daw me mooy ma wut martaba xaadimu rasul boo gisee mooy indi ñaari bayit yi mhm. day doy sëkk te boo demee Cheikh Ibrahima Niass loolu la wax Cheikh na Cheikh Saad bu loolu la wax kon mag ñi peuple bi lañ àndaloon kon tey peuple bu tollee fii di souffrir mhm. ñu koy teg coona mu nekk ci ay jafe-jafe mhm. ñuy jàpp ay opposition di leen néewal doole képp ku ni yaa fi nekkal mag ñi li ñuy xaar ci yow mooy nga fàttali mag ñi taxawaay bi ñu amoon Cheikh El Hadji Abdou baax man boo gisee ma koy tudd encore une fois du li ko jur man du ma toppee nit diw diw wala lim sant si parce que man du ma toppee nit si nga sant wala Mbàkke mhm. mais Cheikh El Hadji Abdou Aziz luñ koy li tax ñu koy tudd ñun mooy taxawaay bi mu amoon ci senegal Sénégal mhm. citoyenneté bi mu ñu jàngal fu lu coow li metti metti mu mën a jël position ànd ak dëgg mhm. kon loolu maa ngi ciy woo sëriñ si te di ci rafet njort bu baax encore une fois parce que réew mi nag politiciens yi moom bu caaxaan jeexee dëgg des man ñu ci bari awma ci ñoom yaakaar mais sëriñ si tey ñoo mën a redresser réew mi li tax ñu mën ko redresser mooy seen kàddu heure bu jugee war naa nekk solution mm. parce que solution rek la ñuy xaar ci ñoom mm. ndax solution yonent bi moo ko am te ñoom yonent bi lañu doon mm. loolu message la bu may lancé conseil casto concert castoral bi li nga ci wax man dama cee ànd cent pour cent parce que nag bu dee may ñu nit ñi ñu marche nit ñi bépp lépp luñ mën a def loo xam dinañ wan ne ni d'accord ñu ci li liñ ñuy teg mm-hmm. loolu bu boobaa jaamu yàlla la kon concert bi na ko rek ñëpp rek man de wut naa sama ñeenti bool sama kër. ah imam yaa ngi dégg ah, dama lay wax rek man li ma gëm. ah yaa ngi dégg dinaa ko rëkk samay soxna dinañ rëkk. Ah. <laughs> képp ku ma yaakaar. boo paree boo paree soog a dem ci jàkka ji dinaa la jox nit <laughs> non jaamu yàlla la. mais am na am na loo xam ne jaamu yàlla xeex injustice. moo fi eh. taxoon a ñëw yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. moo taxoon lislaam ñëw fi lislaam du dara lu dul xeex injustice. buñ nax nit ñi nañ wax nit ñi lan mooy l'islam. Hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax xadis bu am solo. te xadis boobu dafa baax ñu firil ko nit ñi. Hmm. mu ni afdalu jihaadin kalimatu xaqin inda sultaanin jaa'ir kooku sama sëriñ rek laa mujjee dégg mu koy wax alaaji Abdes Dabba ba mu faatoo ba tey déggatuma benn sëriñ wax ko te xaddis bu wér la gis nga yow mi jàng tubaab xam nga luy superlatif gis nga baat bi da ko tëgg superlatif ni dal arab bu nee dal mooy af ala tafdil la jihaad dafa bari façon jihaad fii sabilillah am na jihaad ci sa alal am na jihaad ci koor am na yonent bi nag jihaad bi gën ci jihaad yi mooy fekk jur bu jeng nga wax ko dëgg loolu loolu xadis la. macha allah yaa ngi dégg comme nag mayuñu la fu ñu la ko waxee. kastoroli lañ la may. jëlal yi tëgg ko. loolu c'est le minimum. am na ku ma woo naan ma. Eh. guddi alxamis gi kenn waru ko cee dëgg taxal ma leeral loolu dafa am solo. Ah, ay ca leeral loolu ñu koy wax <laughs> ay imaam yi APR lañ de ñooñu jànguñu lislaam bëgguñoo waxal lislaam. kon réew mi am na ay imaam yi APR rek. loolu am na fi loolu am na fi. kastoroli ah jaamu yàlla la. Hmm. képp ku ko tëgg dañ la ci bindal tiyaaba hmm. man maa la ko wax hmm. <laughs> billaahi parce que réew lépp loo xam ne injustice la façon boo ko mën a xeexee te mu légal hmm. l'islam da koy maye da la koy permettre kon maa ngi wax Sénégal yëpp suba huit heures dem xam nga dañoo yokk waxtu wi <laughs> nee nañ huit heures et demi bu noon ko buñ ko mënoon yóbbu ba quarante sax d' accord na parce que tëggin wi leen rek la ñuy wane mooy d' accorduñ ci ni réew mi di demee d' accorduñ ci di kenn du bokk loolu rek la ñuy wane weesu wane ko nag ak pacifiquement. très bien waaw kon loolu maa ngi ciy woo ñëpp te lu ko gën a noobul amul ci réew mi. jërëjëf yaa imam euh, su ko defee ñu dem ci Assane Mangane euh, forme euh, façon xeex boobu ay tëggik bool ak demee noonu jàpp nga ne loolu mën na dara dara dara fi mu toll ci njiitu réew mi nga xam ne moo fi nekk di Macky Sall bu ko defee mooy doon tomb mujj bi ñu ku ne joxe ci sa xalaat ñu tëj. waaw loolu de wax dëgg yàlla man daf may fàttali rek waajal ne woon Kaffrine di bañ ninki nanka ki nanka waaw mu ne ku maanaam bu ñu àndaan nekk ay xale bañ na boobu ay xale ñi